asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal 7 yi nga xamante ni ñoo ñuy safoo di ñu seetaan chaque jour ñi ngi ànd ak yéen ci émission Jaljali di leen nuyu di leen ziar di leen sargal bu baax a baax a baax a baax a baax a namoon ngeen ma waaye xam ngeen ni nag maa leen raw lool lool maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di ànd ak yéen chaque jour ci Jaljali waaye Jaljali nag duñ ci wéet benn yoon dañ ci ànd ak ay ndaanaan di invité ñoo xamante ni macha allah réew mi dañ leen a ràññee xam leen lool ñu ànd ceeg tey koo xamante ni nag ku gis bu xar rek daal di koy gis ci côté ba ñoom ñaar ñuy diwoo di di ànd marqué seeni empreinte ba Sénégal ñëpp nangul leen bëgg leen tey nag ñu dalal ko fii borom ñàmbur borom lugaloo muy doyee doyee ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay d'abord di nuyu waa Sénégal 7 ñi nga xam ni ñàkk fee ñoo wóorul ndax macha allah plateau yu baax yi ma fi gis macha allah. macha allah la suñ boroom gën leen a yokku ci daraja Seydina Mohamed. waaye di kontaan ci yow ngay sama mbokk. Ah, waaw. waaw ñu bokk suñu Louga loo waaw loolu am waaw di nuyu nag waa Louga sanc ba si dëkk sanc ba noor Algérie montagne wax naa ko sëñ Louga Touba Seras min na gaaras ñoom Bamba ginnaaw raay kanam raay min na su salaam ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar big up waa Louga waaw waaw <laughs> waa Louga loo moom mi nga xamante ni nii da leen a nuyu ñu bokk nag dëkk Louga mm-hmm. may nuyu waale ñi nga xamante ni nii mooy waa kër Daba Samb maa ngi leen nuyu bu baax a baax sama waa kër maam Alaaji Mbaay mm-hmm. di leen nuyu waaye damay nuyu nag sama taabu góor ba fa nekk Xaadim Mbaay maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla Mbaay Musaale Fatim Gueye mu bu saak ñu xor Amar mm-hmm. maa lay nuyu bu baax di nuyu say rak di nuyu sama goro bu baax boobu fa nekk muy Aminata Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax yaayu maman Samba ak ah, yaayu Biram maa ngi nuyu di la ziar bu baax a baax doyen maa ngi lay nuyu nag maa ngi lay fay bu baax naka mu nag naka naka naka it te yeeg moom loolu la fi am da ngay tës tës rek rëj rëj rek waaw waaw ñu lay dalal xam naa ni euh, ah. kontaan nga lool tey tey tey bu a baax parce que plaisir la mhm. euh, dama jëlale sax borom kër gi mhm. ci relation yu rafet yi ñu am muy Papa Ngagne mhm. sama xarit sama lépp sama mm. euh, waay mm. yow moom ngay sama mbokk di sama lépp tamit donc damay am envie di mm-hmm. toog ak yéen ci plateau yu mel nii mm-hmm. ñu lay remercier bu baax parce que invitation bi danga ñu ko yombalal lool lool lool kon ñun amuñu sa fay waaw eh, euh, doyen ba tey ñuy xuus ci suñu biir émission mm. di waxtaan ak yow tey ñu dalal la fi ñu gis doyen ni nga ni nga ni nga ni nga nekkee ndaanaan mm. sa diggante yaak père bu xar kenn dootu ko naa table ni ngeen àndee ci seen liggéey bu rafet sénégalais yi ñëpp bëgg leen mm. doyen ñu gis léegi euh, liggéey boobu bari lool lool lool ndaxte bu njëkkoon mm. euh, yéen euh, da ngeen ni imiter voix nit imiter ko di di toppandoo nit ko mu mel ni yéen la mm-hmm. muy talent boo nga xamante ni dafa nekk ci yéen mm-hmm. tey ñu gis euh, Kawshen mm-hmm. euh, ñi nga xamante ni dañ ci yéeg sax te duñu reetaan loo kenn waaw ci ci ci ñàkk jàng bi la wala ci tëb rek dal bi la wala doyen loolu nan nga ko nan nan nga koy jàngate waaw di la ziar ci question boobu ci am solo gu mu am solo waaw olof day wax ni lépp looy dugg lu nekk na fekk nga xam ko mais Sénégal malheureusement léegi dafa bari puccaxoo xam nga tey jii exemple rek bi ma lay jox ci gàttal yow soo doon jaay ngooñ léegi nit ñi commencé di jaay euh, euh, maanaam ngay jaay ngooñ mu commencé dox léegi nga gis cinquante jaaykatu ngooñ yu toog ci sa wet yoo xam ni xamuñu fu jaay ngooñ jóge xamuñu lan ñuy jaayee ngooñ xamuñu fan koy bayee waaye yow mi koy jaay muy muy dox rek yaa tax ñoom danañ jëndi ngooñ ñëw jaay ko pour te dire que métier mi nga xam ne moo doon métier am aar. Mhm. gars yi di ko def daan ko teg ci yoon ci njàng ci xam ko ci mbappat ci defi formation léegi ku jóg bëgg a siiw mooy waral nag seen plateau yi ngay gis léegi ak seen yi ngay gis léegi ñu di ko monter. ci mhm. dëkk bi da ngay gis ñi ciy gis ñi ci ëpp ñu ciy taxaw wala ñi ëpp ci petit écran bi. Mhm. du ñu ay artist ñu jóge fële lañ rek bëgg a siiw. ñëw pour siiw. moo tax nag mbir mi léegi kenn xamatul ki ko mën ak ki koy dunde ak ki koy dundal ak ki koy jéem dëgg la mm-hmm. ba tey foofu la ñuy taxawaat mm-hmm. ndaxte bu bu série yi nga xamante ni léegi mm-hmm. dafa bari lool lool lool lool dañuy gis ni yéen koor gi la seen liggéey di gën a dox bu dul koor gi euh, série yi nga xamante ni moom la nit ñi di seetaan xoolatuñu ñi nga xamante ni dañoo mën wala ñu jàng ko casting bi nga àndal la ñuy xool wala ñu xool xale bu góor bu jantal bu njool ñu jël ko dugal ko ci série yi wala ñu xool jigéen ju jongoma mhm. ñu jël ko dugal ko ci série yi xoolatuñu mhm. euh, comme ni ma la ko waxee woon léegi rek xam-xam bi xoolatuñu loolu mhm. te yéen ngeen am talent loolu macha allah euh, est-ce que liggéey bi yéen a ngi ciy gis seen bopp ba léegi waaw ñu ngi ciy sant bu baax euh, aussi tamit dama koy wax toujours ma ni yenn producteurs yi ñoom dañu produiretul les artistes comédiens yi ko def métier. Euh, xëy na nag li tax loolu mooy man mi tey soo ma bëggoon produire du bokk ak ki nga xam ne dafa ñëw rek pour siiw déedéet da ñëw ñu waxtaan waxtaan bu wóor teg ko ci contrat yu wóor nga fay ma xaalis bu wóor ñu mën a liggéey. Mhm. waa mais soo gisee nag koo xam ni moom moom na feeñ ci télé bi rek nga xool profil am donte sax mënul la muy def. na am buzz moom na am rek. na génn ñu naan ko yaa joué woon lee mu naan waaw nangam nangam gaay gaay xam ko ci moom looloo ko ci intéressé kook boo ko gisee ak nam la koy yombale mais kooka ngay jël mais na ngay bàyyi ki nga xam ni moom moo ko def métier. et pourtant loolu muy musiba nag. dëgg la te damay araftu ñi ci bari ñoo xam ni seen taar la ñuy utiliser ci télévision bi. Mhm. wala seen seen seen waa seen rafetaay. dëgg gis nga aar bu taxee ngay joué loo xam ne si tey par exemple lu doy waar la. dund gi yàggul de dañ ci def attention da nga koo xam te naan man loo ma jox ma jee ko di ngand ngandlu dund aar yàggul waaw c'est-à-dire que maanaam euh, dund aar yàggul laa bëgg a wax xam nga lu tax yàggul mhm. loo aay aay bis dina ñëw ñu xewal keneen koo xam ni par la force dañ naan kee xaw mënoo ci dara gars yi xoolatuñ ki man wala ki aay wala nangam defal benn affaire mu def buzz yow xew nga xoolatuñ ki ko def métier wala professionnel bi wala wala ki nga xam ne daf ko mën di ko teg si yoon non non non. te bës bi sax daa mel ni yàggatul léegi. te bës bi léegi yàggatul léegi. Mhm. ay tiktok ak yi nii ak nu mu mënti demee. ay bësu un mois trois mois lay am keneen fël. Mhm. donc suñ taxee nag nga def ci loo xam ne si tey jii ëllëg da koy réccu su boobaa booy jooy kenn du la nax. kon nañuy valoriser suñu bopp nañu moytu bëgg siiw. wala bëgg am buzz rek tax nga ñëw di sar sa bopp ci image ci loo xam ne joxuñu lu ci dara. te jàngiwaat. amul sens nañ jàngi. dëgg la mhm. euh, waaye ñu gis yàq per bu xar ni ngeen déggoowee foo leen toog euh, daa di daa di daa def fawantu def dara sax day neex sénégalais yi. Mm-hmm. yow tey jii buñ la joxoon. xaar mbay ma jaaga wala kenn boo ko imité day mel ni moom moo toog mm-hmm. loolu talant bi nekk ci yow euh, da nga ko jàng mm-hmm. wala dafa jékki-jékki nekk don bu ñëw ci yow wala fan nga jaar waaw xam nga ku ni Louga ni aar parce que booy xool lu ci mel ne cercle de la jeunesse wala ay ngalam de Louga xam nga ni ku dëkk kër Baye Père Alaaji Mbaye ñoom grand Hérif <laughs> Mbaye ñu ngi leen di nuyu ñoom Malick Mbaye gaa yëpp ñu ngi leen di jaar suñuy xarit lañu ay artiste lañu ku dëkk foofu mhm. wax dëgg yàlla xamul lay jaaxal mais du talent ak aar moo tax souvent damay nekk fii ñuy tagg ay ponkal sax ci aar bi mhm. d'accord nangul naa leen waaye damay xam ne rek yàlla suturaal na ma dara waaye nag dëkk bi ma jógee def cee am pàcc bu rëy rëy bu ci am. soo dëkkee luga da ngay boo boo juddoo rek mën naa ni que da ngay am. aar aar ci sa yaram. <laughs> sa deret don la. mais nag don kese doyul da nga ciy liggéey nag. di jàngi bi ma amee don bi ba pare damaa dem def ay formation jóge ca nag. dëkk yi may lim nii yëpp fu mu fi fanaanul yendu naa fa muy yenn dëkk ay diggante tëggandoo ak peex taal ak yëngeen ak taal bax léegi yaxi ñay ak cuuruur ak mbadaxu na ca ne leen kañu karar bopp ca ñen na jëf ñang wam tan faal ak poto park sàkkal ak lana sàkkal ak sañ basi sañ war ak jëmoon tan tax na ka dilako Touba sermi nagaari nekk ba ginnaaw ray kanam ray ba ngay dugg barkel ba ba ngay dugg Espagne foofi jaar bu ma fa dugg joué fa def naa fa genn tàkkusaan dëkk yi daa mel ne mat na téeméeri dëkk de su ma ko toppoon dama damay lim Afrique ak Europe yëpp ëpp na ko cest diir dire que nag boo mbappatee ba pare am don jàngi waaw dangay doo bokk ki nga xam ni dafa xëy xëy rek taxaw bëgg bëgg def du ngeen yam te bi ci gën a garaaw mooy des fois nga gis benn comédien bu neex gaa yëpp di ko bëgg. Mhm. ci senegal mais man su ma koy xool duma wax parce que soo waxee ñun daa soxor di mhm. mais da ngay xam ni techniquement ki taxawul. li muy def nekkul ci moom. non maanaam taxawul aayul. dëgg la aayul dëgg maanaam la muy taxaw di dégager. Mhm. li ngay dégager bouger woo. adduna bi di toj nit ñi rey seen bopp non dafa am euh, euh, technique boo koy defee parce que sénégalais yi léegi kenn mënul leen a nax. mais euh, il faut fallait que nga jàng mbir pour xam ko soog ko def. kon sa liggéey bi doyen génne la génne na la dëkk bi yóbbu la Europe. bien sûr Paris Italie. Mhm. Portugal dem ay programme yu mag foofu ba tey foofu la ñuy taxaw doyen mhm. ndax kon nañ koy waxee mhm. euh, da ngeen ni yéen yéen yéen artistes yi laay wax mhm. li ma jaaxal ci yéen mooy da ngeen di commencé liggéey war a sàcc seen bopp wala investir dara doo leen ko def da ngeen di topp maanaam bës bi. Mhm. wala ngeen topp mu mbaay bi. Mhm. ba doo leen sàcc seen bopp ba bu leen dara dalee. Mhm. mu dem bañ leen ñaanal ndimbal ci télé yi wala ñu di leen ketal. te lan moo tax doo leen sóoraale ni yéen bis mi ngi ñëw. seen i âge ngi gën a dem. feebar mën na laa dab wala yu demee ni ki noonu. lan moo tax doo leen sàcc seen bopp. ba bu leen feebar dalee ngeen ngeen ngeen mënal ci seen bopp dara. ba réseaux sociaux di ko yëg. ñun moom dañuy sant yàlla. ñun ñu nekk télévision Futurs Médias. dañuy sant yàlla bu baax loolu daluñu Sénégal nag ci rumeur la ñuy dox boo dox ci rumeur nag xamoo lu xew waaye Futurs Médias soo fa nekkee am fa contrat bu wóor boo feebaree kenn du la ketal ñoo lay faj te loolu yàlla suturaal nañ ci man mii tey su ma feebaroon mhm. yàlla tere yàlla te Futurs Médias moo may faj kon loolu jeex na ci ñun kantaan nag sàcc sa bopp mhm. daf ci am solo parce que nit boo yëngu ci dara di am dara war nga chaque fin du mois nga denc dara dara gënta yées aar ba bàyyi aar te mënoo taxaw ni kër gi maa ko ci tabax wala oto bi maa ko ci am wala lii maa ko ci def. dëgg dëgg dara moom échec total la. yàlla nañ ci yàlla musal. te nag loolu ñun jeune talan yi ñun jeunes yi yi nga xam ni euh, dañ fi fekkoon suñuy mag suñuy maam ñu jaaroon fi fañ mujj gis nañ ko. ñun war nañoo xolaat suñu toogaay bu baax. dëgg la ba loolu leen daloon ñun bu mu dal. waaw donc daal sàcc sa bopp googu am na ci solo. Mhm. te incha allah ñu ngi ci woon mais gën nga ñu cee yokk dinañ ci gën a am taxawaay. dëgg la barki démb ñu gis per bu xar ci image yi mu leeral ni ki nga xamante ni nii mooy seen naataango parce que doo fi toog ba jug te duñ ci leeral tuuti rek. Mm. muy ki nga xamante ni nii mooy Ndiaye mu ne Futurs Médias jël nañ ko en charge. Mm-hmm. ba ñu ngi koy fàcc ñu ne nañ la laaj ba xam loolu da nga koy dëggal wala. parce que dañ ne woon Youssou Ndour dafa taxaw ni dafa daf daf daf ne ko da ko seetaan daal loolu la loolu la ñenn ñi waxoon. moo tax ma ni sànq Sénégal ci rumeur la ñuy dox. Hmm. Futurs Médias képp du képp ku fa feebar ñoo lay jël en charge faj la dégg nga baax li ma la wax. Hmm. dama la jox exemple sànq nee naa la man mii tey su ma feebaroon yàlla tere yàlla tere Futurs Médias moo may faj jël nañ ko en charge taxaw nañ ci taxawaay bi war ñu ngi koy faj faj mi war. Sénégal nag dañuy jox ci ci rumeur da ngay dégg ko naan ana nangam ana diw pour pourquoi defuñu ko lii pour pourquoi defuñu ko laa non nañ tey def nag macha allah jël nañ ko en charge Futurs Médias ñu ngi koy faj ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla yàlla yokkutan gi donc nañ nañ nañ xam loolu bu baax te bàyyi rumeur yi amul sens. beneen bi ci topp kon loolu leer na mm-hmm. ci bopp sénégalais yi beneen bi ci topp doyen mm-hmm. dañ leen gisoon ni ngeen di feeñee Futurs Médias bu baax bu baax yéen ak ku ci mel ni ñoom dërëm ak ñëpp dañuy jékki-jékki gis gis fa seen absence man pour man sax yow liggéeyatoo Futurs Médias <laughs> parce que man dama fa gëj gis sa image ci rajo bi rek laa lay dégg ma lay laaj ba xam yaa nga fa ba léegi mm-hmm. wala ci rajo bi nga nga nekk voilà parce que man gisatuma sa image Futurs Médias lu bari waaw xam nga bu ne Futurs Médias groupe la GFM mooy groupe Futur Média groupe Futur Média nag du télé kese Sénégal dañ lay gis ci télé jékki-jékki gisatuñ la rek ah kon de kii nekkatu fa déedéet TFM dafa bari ay branche am na télé bi am na RFM IGFM am na LOPS ba ci sax ki nekk décor te feeñul sax ak chauffeur ba ca nekk ñëpp ñu ngi Futur Média kenn ku ci ne yaa ngi ci benn branche. nekk RFM rek rek rek sax doyoon na ci nekk Futurs Médias. nekk RFM kese parce que branche boo ci nekk yaa ngi ci groupe bi. ni ñi ban la déggatul ci télé bi gisatu la ñu ngi lay dégg ci rajo bi rek ci lañ war a xam ni ba tey yaa ngi Futurs Médias mais da ngay dégg ah moom de gisatuñ ko ci télé ba moom da nangam nangam moom da nangam nangam Futurs Médias du télé kese boo liggéey ci télé bi yaa ngi liggéey ci rajo bi donc yëpp c'est la même chose benn la l'essentiel mooy tey ñii nii nii nii lañ fa gën a nekk te ñu ngi ñaan ñu ñaanal ñu ñu sax fa di liggéey Youssou Ndour ba xëy retraité. ah macha allah <laughs> ba tey koor gi dañ leen daan gis euh, lu am solo ngeen ko daan def Futurs koor mën naa ni koor gi ko daan dañ leen daan gis yaak Amina Poté ci li ngeen xamante ni moom da ko fa daan def ci koor gi ñu leen fekkaan gis te dafa mel ni at yi gisuñu leen fa. waaw euh, amoon na gargot amoon na rek gargot bi waaw ñoom ñoom gars yi ña nga fa woon ñu ngi koy def mais moment bi muy am dafa fekkoon ñu xawoon jagat yi. waaw moo tax nag mujjuñ ci woon participer ci gargot bi mhm. bon parce que damay nuyu bu baax suñu directeurs yi di ci jiital euh, président directeur général Youssouma Jigéen teg ci Birane Njaga Buuba Njaga euh, gargot du am mukk ba jeex te duma ci woo fu mu amee dana ni ma kar ni ma kaay def fi gargot parce que li ma koy waxee toujours nee naa gargot bu dee liir la bokk naa ci ñi ko ngénte bon woon na ma moom Ndiaga pour ma participer ci mais dafa fekkoon boobu yaram bi xaw a sutante lii moo waral mujj ñu woon bokk ci ci ci ci ci gargot bi waaye macha allah jàll na itam. ko doon mais mais ñu ngi leen doon dégg ci rajo bi. bien sûr waaw léegi lan moo tax demoo leen ci gargot bi lu yaram bi sutante sutante ku mën a wax ci rajo mën naa participer ci gargot mais bokkul dañoo am ñeneen ñu bees ñu indi mhm. xaw leen ak boycotté wala nu mu fa demee non bokkul bokkul mhm. parce que rajo bi mën ngaa nekk à distance sax ñu ñu woo nga wax ñu enregistré te doo déplacé wu. bu dee lii nag dangay ngay déplacé ñëw di jaabante et donc du yem loolu la woon quoi. Mm-hmm. ba tey euh, doyen ñuy rafetlu kàddu yi bu baax a baax waaye dañoo gis ki nga xamante ne ni daanaka mën nañ ni moo leen dalal Futurs Médias muy ki nga xamante ne ni mooy mooy mooy moo leen dalal TFM euh, yéen defe naa ni Kouthia fa ngeen ko fekk TFM ngeen ko fekk. waaw mën naa ni. Uh-huh. Kouthia bi muy jël tableau bi. tableau TFM bi. di dawak ak moom ci dëkk bi. waaw mën naa ni euh, mennum Kouthia moo ñu jiitu ci TFM. moo leen fa jiitu waaw mennum Kouthia. Mhm. mais keneen ku ñëw. TFM TFM nga ñu fekk bi télé bi defee di def test. Mhm. test laa wax. ñuy tabax tele bi pareewul. Mhm. boobu loolu fekk nañu fa ña fa. kon yàgg ngeen te télé bi. <laughs> kon ni ñu koy waxee yéen a ngénte télé bi kon télé bi jamono ji kenn waru leen faa kenn waru leen faa ëpp ëpp ëpp doole waaw ñu ngi fay sant yàlla ngénte mais seen image dafa des trop léegi kon ni ñu koy ñu koy waxee mm-hmm. parce que xam nga ni nit sénégalais yuy dem bay laajte mm-hmm. naan ndax euh, euh, doyen ak père bu xaar nekkatuñ ci télé ak ni mm-hmm. ngeen fa meloon daan fa def ay ay ketchu am doole tey kon ni ñu ko waxee yéen a ko sanc ñu dem ba seen image bareetu fa kon xam naa yaa quelque chose xam naa na da ngay rafetal rek ngir ngir ngir bañ yegg du ca dut baaraam ba xewul. Ah. ñun dañuy sant yàlla. waaw parce que bu bu ay film baree yow soo ñëwee def sax lu baax kenn du kenn du la ràññee bu film baree ku jug def film tey ji Sénégal mën naa ni film moom wala te ay théâtre envahir na dëkk bi waaw su su ngir tollee foofu nag yow day jar nga standby parce que li ngay def nit ñi dañ koy xaar te qualité nga war di def donc doo jekki-jekki rek gëj ngaa génn rek ngay pëccaxoo te nag ab artiste da ngay garder sa image. Mhm. yow mënuñu nga nekk artiste fu nu zappé gis la fa film bu jot nga bokk ci bu yàggee sax yow nga pare donc nag toogaay boobu du TFM ñooñu ignoré wala ñooñu puus wala nangam déedéet yéen a ko bëgg ñun je préfère bu ñuy def dara bu doon lu ñu togg liggéey ko ba mu am doole ñu ñëw teg ko ci taabal ji waaye def rek pour def kee def na naa ñëw def kii mu ngi def ñaari séquence kaay am ko ci non loolu tollatuñ ñu gis ni euh, Kouthia. fa la nekkoon TFM. Mm-hmm. ba mu fa nekkee euh, euh, ku ci mel ni ñu gis ni mu ni mu ni mu waxee tuddul tur nag mais oustaz yi lay wax mu mel ni oustaz Modou Fall moom lay waxal ba mu am fa jàppante ba moom sortie yi mu daan def di ko di di ci ànd ak TFM ñu dem ba bañal ko ko moo waral démissionné am foofu ci TFM. Mm-hmm. ñu lay laaj loolu ban jàngat nga ci wax doyen. waaw ah, man de loolu moom duma ci sori ndax olof day wax ni ndox moo fekkul ba muy taabu ci dugal sa loxo waaye daal li ma ci mën a wax daal mooy Kouthia nit ku baax la nit ku yiw la man sama xarit la. Kouthia waaw. TFM euh, Kouthia ko moom ndax euh, cër bi mu fa am macha allah war na tax ñu xam ni euh, kër gi këram la. kantaan nag la mu waxak lañ ko wax la mu expliqué loolu moom dama ci maandu parce que xaw ma lu tax waaye xam naa ni daal Kouthia TFM moom moom Kouthia ko moom këram lu mu fa def sañ na ko ndax këram lii daal moom mën naa la ko ci wax léegi boo nekkee ci kër mhm. amoo droit boo boo boo gisee lu la neexut ci kër ga nga kaas ko mhm. wala yéen dañ leen tënk ba ba ba amoo leen droit kaas li leen naqari biir TFM waaw mais man gisuma lu ma naqari TFM su ma gisoon kaas ko man su ma gisoon lu ma naqari TFM léegi kaas ko mais franchement parler su ma doon kaas TFM lan laay kaas yow yaa ngi liggéey ñu jox la cër bi ñu la war a jox sa salaire du tardé ñu ngi la teg ci yoon waaye léegi looy kaas man lan laay kaas gisuma lu ma naqari di bay kaas xanaa nit doo du maanaam sama genre gi tey du ma xëy rek salaamaaleykum rek di kaas xëy na nag aussi. nit it mën naa am lu ko metti ci ci ci kër it mu kaas ko su boobaa itam nañ ko nangul droit am. foofu laay waxee. waaw nañ ko nangul droit waaw d' accord foofu moom d' accord naa. Mm. nit mën naa nekk ci kër am lu ko naqari mu kaas ko et su boobaa itam bu ko kaasee tamit waaw nañ ko comprendre ñu waxtaane ko mu jeex donc daal. loolu la daal sama gis-gis pour man. sa gis-gis loolu la. ku caa jóge bi mu fa jóge manqué na leen et tout wala metti na leen wala wala wala wala daal yéen nan ngeen ko nan ngeen ko mën a gisee. waaw man bu du fa jóg. ndax ndaanaan bu toll noonu. dem waaw waaw waaw warul dem daal sérieusement warul dem te maa ngi koy lancer message boobu di ko wax ni moom suñu kilifa la suñu lépp la suñu njiit la ca kër ga ba pare ñëw def ci aar loo xam ni mën naa ni yombul nit di ko def Kouthia boo seetaanee Kouthia show non da xam ni ndaanaan mooy def ñëpp nangul ko ko nag daal bu ma sañoon du jóge mukk Télé Futurs Médias fa lay nekk jiitewaat nu nekk suñu mag ñu àndandoo di liggéey mu nekk fa mu nekkoon. kon daal da ngay lancer appel nii nu ku caa def ba mën a dellusiwaat Futurs Médias moo lay gënal waruñu jëli ko wala dara. moo ñu gënal xam nga man bu ma sañoon maay xam man maay ban genre nit. Mm-hmm. wallaahi alazim bu ma sañoon képp ku nekk ci barab di fa liggéey yàlla yokk la fa. macha allah bu ma sañoon képp ku nekk ci barab di fa liggéey yàlla may la fa jàmm ba doom dara la loola naqari ndax nit lu lu mënti nekkee ak li nit lu mënti def boo nekkee ci place yàlla def place boobu kat ñu ràññee la fa nit ñi di la béggee ngay kontaan loolu nit ñi waaw ku mel noonu euh, man damay bëgg rek yàlla di la suturaal ba doo am dara lu la metti nga toog liggéey si liggéey donc daal maa ngi koy wax daal ni ko grand bi ñu ngi lay ziar di la ñaan nga dellu si ci kër gi jiite say rek comme na nga ko doon defee ñu ànd ak yow liggéey. waaw macha allah loolu xam naa message bu Kouthia di jot la. Mm-hmm. ba tey tamit dañ leen doon gis ci par jeudi. Mm-hmm. Euh, après midi bi dañ leen dañ leen daan gis TFM. Mm-hmm. ngeen fay def lu am solo. émission yi fa daan am après par léegi gisatuma leen fa euh, doyen. gisatuma leen fa loolu lan moo ko waral. ni ngeen fa daan animé après midi bi. seetu bi la quoi seetu bi gisatuma leen ci seetu bi daal gisatuma leen fa. pourtant seetu Sénégal mi ngi am. non loolu weddi wuñ ko. seetu bi mi ngi am. abaa di ko doxal macha allah mu neex lool. avant abaa yéen a fa nekk. dëgg la dëgg la mais seetu yi dafa bari ay ay seetu day am seetu abaa am seetu euh, dërëm ak keneen am seetu keneen ak keneen mais xam nga tamit euh, tele ni muy doxee mooy dañuy xool la gën rek ñu di ko def tey jii mën ngeen xool ni que kat seetu bii doyen di def wax dëgg yàlla. gis nañ ni seetu bee moo ko gën a dox su boobaa man sax su ma dee gor naan nañ bàyyi diw def. mais doyen seen seetu dara gënu ko fa woon a dox. que man lu ci ëpp man mii di wax ak yow seen dama ko daan xaar. Mm-hmm. di ko seetaan ndax mm-hmm. àdduna sépp dañ koo bëggoon. Mm-hmm. dañ naan ah tey doyen lañ indi te ñëpp dañuy bàyyi liñ doon def toog di la xaar. sa seet seen seetu bi ngeen fa daan def. benn seetu dàq ko fa woon. waaw te gisatuñ la fa. waaw ñu ngi ñaan rek. Euh, ñu balaa yàgg ak koor gi fi jógeeg yooyu. am nga koor moom su ñëwee changement de programme day am mais comme koor gi jeex na ñu ngi xaar incha allah émission yooyu dellu si bañ mën ko defal di bégalaat askan wi comme ni ñu leen daan bégalee. dañ leen a jékki-jékki arrêté leen ci seetu bi. ne leen bu leen defati seetu non non non non non non kenn arrêté wuñu. Hmm. xam nga yow ci télé nga nekk changement de programme day am boo xoolee at mu nekk Télé Futurs Médias changement de programme day am te loolu innovation la waaye. Euh, waroo mën a dëkk rek ci seen Sénégal set bii tey topp yenn émission rek te changement du am fok ngeen di indi yu bees pour bégalaat seen i téléspectateurs ah donc loolu day am changement yooyu nag mooy indi seetu Sénégal indi Midi Plus indi leneen ak leneen kon donc gis nga ni kon émission yi ñu ngi ñëw petit à petit noonu la ñuy indee ba orienté ni a ah, doyen kat fii lañ ko gis diw fii lañ ko gis diw fii lañ ko gis ci beneen concept wala beneen émission je pense que man loolu laa gën a yaakaar ni am. Mm. parce que boo defee benn émission quatre ans cinq ans jot na nag waaw nga changé ko indi leneen. Mm. Mm. noonu nga ko gisee. moo am. noonu moo am. ah waaw kon kon kon kon ni nga ko waxee rek <laughs> doyen comme kon noonu nga ko gisee kon dañ la ciy fekk si ba tey defe naa ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi couvrir TFM ga nga nekk <laughs> ba tey defe naa ni ah. wax ndax dëgg yàlla nit bu nekkee ci bërëb léegi-léegi war na am lu ko mën a naqari mu jooytu ko mhm. wala mu am fa loo xam ne gis na ko fa tan neexu ko mu ne ah lii da neexuma ko bu ñu ko changé woon amaana dina demee nii wala mu demee nii mhm. comme que yow dañ la fee teg da nga nekkoon fa mhm. am nga droit ñu laaj na nga daal ñuy wax li nga xamante ni nii moo la fa naqari te bëggoo ko fa wala buñ ko changé woon dina baax a ah nga daal di koy wax askan wi ñu dégg ko waaw xam nga tamit man man boo ma bëggee wutal lu ma naqari te aw ma ko nga wutal ma ko nag ndax nag maa ngi bëgg a sonn <laughs> xam naa moom yaa ngi créer rek pour ma am lu man a naqari te nag wax dëgg yàlla man sa création yi man. xam nga ni fi may fekk. man dina ma rey. am nga loola naqari gudul jeex du xaaj. aw ma fa leen na lu ma naqari. dañuy waxtaan rek doyen. dañuy aw ma fa leen na lu ma naqari maa ngi fay sant bu wér. tey di ñaan yàlla yàlla bu ma fa am lu ma naqari. tey muñ. waaw xam nga. inna allaha maa sabirin ah. yàlla daf ñu ànd naag way muñi. nit da ngay sax lu la naqari ci barab nga muñ. boo muñee rek muñ. yàlla aji muñi la àndal. moo tax nag. bëgguñu sax nit xam suñu naqar ci tale bi parce que loolu suñu sag la sa sag nag waaw doo ko saggi ñun ci loolu la ñuy yar ci loolu la ñuy dund nit mënoo nekk fenn am fa à cent pour cent lépp lu la neex mais dangay ngay boole nag lu la neex ak lu la naqari pour mën faa nekk waaye bu dee lu la naqari ci barab rek nga jóg ah je pense que ni kon doo nekk fenn te man ma genre boobu man damay bëgg mu neex ma nekk fi ma gis fi lu ma metti ma muñ ko as gor laa bëgg a doon daal moo tax noonu laa bëgg a def fi ma nekk waaye nekk ci barab di ko ŋaññ wala di wax di ko di ca wax man loolu duma ko duma ko duma ko def man nag laa wax personnellement comprendre nga baax dégg naa wax ci bu baax baax doyen ñu gis. dañ lay laaj ci euh, euh, fi mu toll nii réseaux sociaux yi fi mu yegg. Mm. TikTok bi chaque jour yaa ngi gis xale yi lu di def ñu ngi koy toppandoo concurrence bi nekk ci ku nekk yaa ngi xëcc ay abonné ñii ñi ngi xool ku nekk daal yaa ngi koy am na ñoo xamante ni sax dañuy def yaramu neen nekk ci TikTok pour bëgg ay abone am na ñoo xamante ni dañ ciy def loo xamante dañ naan xaaral ma def ci loo xamante ni sénégalais ñëpp may jàmbat pour ma am ci buzz mm. xale yi nan nga leen gisee ak réseaux sociaux yi. waaw man bëggoon naa wax sax ci li daanu fee mais comme loolu du lu ñuy débat euh, waaye fexe ba di monte seen kii yi euh, ak seen régime yi yooyu ci li daanu yooyu yëpp mais garaaw man comprendre naa leen. <laughs> li ma la laaj. <laughs> waaw euh, xam nga. Mhm. mooy li may sànq nit buy def dara da koy xam. Mhm. te léegi Sénégal ñëpp bëgg siiw. Mhm. siiw nag bu taxee. nga ne ci tiktok bi di sumee kooko def def def def naka su dul noonu billaahi di nga ko réccu siiw day jot ci nit yàlla def ko buzz du dara ñu fi doon am buzz tey jii il y a presque vingt ans yi passé wala quinze ans kenn gisatu leen kenn déggatu leen buzz day jeex day xew yi wallaay te bisa ngi ñëw nga nekk maire bu dee jigéen nga wala nga nekk paa wallaay billaay boo tegoon loo xam ne buzz nga ci jublu woon tarafetul di nga toog say doom ak say rakk ak say sët ak say sëtaat toog nii te loolu ba wéy na mbuus lay doon ku mën a tiktok tiktokal ku mën a toj réseaux sociaux yi defal mais defal attention image du fi jóg te lépp lu waay def ci image bu dee lu rafet du fi jóg bu dee leneen it du fi jóg kon nañuy rafetal defin wi di ko def ci anam yu rafet parce doyen mënta toog fii naan kenn bul tiktok wala kenn bul nangam waaye daal kii tiktok na ko def ci anam yu rafet mhm. ba bu ëllëgee buñ ko ko tegalee doo am gàcc mhm. man de loolu laay seddu sama àdduna maa ngi ñaan suñu boroom mu kàttanal ma dooleel ma ba sama image doon yu rafet ba du ma toog mukk ëllëg ak sama njaboot ñu wër ma ñu ko tegaat ko muy wokk doq mhm. léegi nag jigéen ñi ci bëri wala góor ñi ci bëri dañuy imposer ñu naan la non il faut nga ware nga wane un vrai film quoi wala un vrai nangam ngay ngand ngandalu waaw wala tey jii dama xuloo naag doyen TikTok laay dem xas jee ko fa. dem xas ko pour TikTok laay dem tontu jee ko fa. wala pour la lu doy waar. wala nga toog ci réseaux sociaux yi di saaga as gor. wallaay. di xaawi suturaam di xaawi suturaam yooyu yëpp dafa ñaaw. ñaaw na nañ ko bàyyi amul mm. benn sens. dëgg la waaw buzz mm. lu la mayit bis mën naa ñëw buzz ba jeex. carrière dafa yàggul carrière yàggul kon nañ koy rafetal dara jar lu jar rafetal la ba ci xuloo bi rek kon ne ma la koy waxee mm. tey jii doyen mm. xuloo ne naag per bu xar maara day misi dem nañ ànd tey euh, per bu xarang ca ca tiktok ba di ko xas di ko yekk melengaan lu mu ko xamaloon ci lu ñaaw génne ko muy lu doy waar léegi Sénégal lool dong moo fi am tey jii concurrent na kii def na nii kii def na nii manit naa dem def ne mm. ak xale yu jigéen ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi chantage ñi nga xamante ni ni ñooy ñi nekk ci ci ci ci ñi siiw daal mm-hmm. ànd ak jigéen mu foto la mm-hmm. nga def yaramu neen wala nga wooteeg moom appel vidéo mm-hmm. mu foto la nga def yaramu neen mu chantage la waaw damay boole boobu ak promotion canapé promotion canapé yi surtout nag surtout loolu ndax jigéen bi dina dina dina foto góor yor ay ay ay image man man wala mu yor audio góor tas ko man dama xamul loolu lan lañ ci nit di gañe yow yaa ngi ñëw wax daba ngeen waxtaan ba àggal nga jël audio wu daba wala vidéo wu daba téye ko di ko santaas wala nga tas ko yow lan lan nga ciy gañe te di nga ci am bàkkaar sa diggante sa borom boo xam ne ëllëg di ko la yëg kooku as gor dafa war a gore boobu muy dee aussi tamit jigéen ñëw bëgg métier mi bëgg a siiw macha allah bëgg lu yóbbu ci waajuram ñëw nga xam ne yow yaa ngi liggéey ci loolu nga ne ko kaay mën naa nekk waaye defal ma lii ma defal la lii góor gu koy def. mooy promotion canapé góor gu koy def wala tey jii bëgg a feeñ fenn tax ñu ne la balaa ngay feeñ damay day sëq ak yow nangam. Ah. nga doo ko génn fen góor guy def loolu bala ngaa dee di nga torox waaye jigéen guy nangu looloon jàppal ni nekk nga jigéen ju yées. jigéen da ngay garder sa dignité am sa fulla am sa fayda gor dëgg dëgg dëgg dëgg mooy man ki may jàppee ponkal dëgg gor mooy jigéen bi ñëw ci nit nekk actrice principal ñoor koo fay ay million waa ji ni ko ah mën na nekk de waaye lii mu boole lépp ni ko bëgguma dem toog xaar yàlla kooku faaw yàlla fekk ko fa kon góor ñi nañ yërëm jigéen ñi jigéen ñi itam nañ xam seen bopp lépp lu la waay di wax bu ci dugalee fo wala ñàkk fayda comme man a doon sànni ko fa parce que lu fi góor seq ak yow kat bu ëllëgee fee lay toog boo ko romee mu joxañ la ni diw mee nangam nangam. personnalité ak dignité lu ko waay jëndee jar jigéen dafa am personnalité. wallaay ku fiy daagu ñoo ko jur. wallaay jigéen mooy ëmb mooy nàmpal mooy yar mooy def lépp. wallaay te ku fi daagu rek jigéen la jur kon war nañ leen a fonk sàmm leen jox leen cër. chaque jour waaye am na ci ñoo xam ne li ñu def ci milieu aar bi ci ay góor salte na. jigéen bi ñëw bëgg métier ñàkk xamul fu mu fu mu koy jooytoo nga exploité ko ci loolu nax ko def ko lu la neex billaahi di nga dajeeg sa borom bis nañ ko moytu amul benn njariñ amul njariñ doyen foofu laay ñëw ba tey parce que li ma wax rek nee naa jigéen mënta jiite jàkka waaye moo jur ki koy def jigéen mënta ñaani jabar waaye moo jur ki koy def mm-hmm. kon jigéen yàlla dafa am lu bari lu mu dëxëñ ci ñun mm-hmm. kon suñu teg suñu dignité kenn waruñu koo gën a bëggal suñu bopp mm-hmm. ndax ñun dañoo war a xam suñu bopp ñooy jur président de la république ñooy jur ministre yi ñooy jur ku ne ku ne jigéen a koy jur te nee naa kenn du dégg abbaay saanam am nday saanam rek la ñuy dégg yaay sonn lool mhm. fan yi ñuy ñëw ci agression bi nga xamante ni mhm. moo nekk ci dëkk bi ñu koy gis mhm. mu doon lu doy waar bërki démb xaw ma démb ñu ngi gis ay image dañ lay fekk léegi ba sa biir kër di la agressé muy loo xamante ni ñàkk ñàkk ñàkk kaaraange gi am ci dëkk bi ah muy lu yéeme fan yi nag dafa mel ni dañoo rakkaaju te nday saan nday yeeguñu bàyyi yeeguñu ndayoo da lay yar fam la war a yare bàyyi yar la fam la war a yare yow nga génn opté bon mhm. ni dama koy jël moom ko téye ko amaana sa nday sëy na ba dee doyen mhm. war nañoo xoolaat Sénégal fan yi agression bi bari na agression bi bari na euh, mais li ma ci li ci li ci première garab bi koy faj mooy nit nit ñi nañuy teel a tëdd agression nit ki bala laa agressé mu dem yenn heure yi yenn heure yi bu la dul fekk ci mbedd bu la di fekk ci sa kër nga liggéey ñëw toog kenn du la agressé kii agressé nag moom sérieusement parlé euh, man je pense que nii nit da ngay war di xalaat sa diggante ak sa borom man de looloo ma jaaxal man. looloo jaaxal ñëpp. man lépp lu ma def ci àdduna dama ci jiital sama diggante ak sama borom. dëgg la moo tax de ma ma ma profité ci ni gis nga xëy na loolu bokk na ci li ma gën a tardé la waaye kon bu fekkee loolu may tardé yàlla naa tardé. muy lan. ñu xool sama diggante ak sama borom. ci li may jëf li may wax li may def ak ni may liggéey euh, loolu bu ko agresseur bi doon xalaat billaahi dina bàyyi lépp te liggéey mais doyen yaa ngi naan nañ teel a tëdd waaye léegi agresseurs yi dañuy dugg ba ci biir kër wax dëgg la mais agré agression li ci ëpp guddi lay doon moo tax may wax loolu man des fois dinaa romb góor goo xam ni exemple euh, walla man damay tëdd sama néeg sax guddi dégg ay góor yi wax ak ay jigéen ay trois heures du matin quatre heures te boobu maa ngi tëdd tëj sama néeg danga naan ñi ana seeni waajur mais lu yéeme romb xale yi ndaw ci mbedd mi ñu cekk cekk si ba quatre heures di matin cinq heures matin mooy lu doy la faute waajur yi nañ teewaat xale yi ci biir kër yi kii agressé nag moom mhm. bu doon ay conseil moo koy wàññi kon wàññi na bu yàgg mhm. ndax wax nañ ci lu ne. Mhm. waaye daal ki nga xam ne moom la ñuy agressé daal man foofu laay bëgg a féete. Mhm. nañuy xool fi ñuy dugg. Mhm. gàttal suñu tànk yenn heure yi itam heure de crime. boo ko de boo ko dul boo boo ko dul tëdd. lu ne mën na laa dal lu nekk mën na laa dal donc daal dëgg la doyen wax ji am na solo bu baax a baax mm-hmm. message bi yaakaar naa ni askan wi dinañ ko déglu mm-hmm. waaye nag euh, duñ la fi euh, invité ba nga jóg te laajuñu la ci sa digganteeg euh, per bu xar ndax ñi ngi ci suñu cëppaandawu émission mm-hmm. waxtu wi jeex na waaye sa diggante ak per bu xar déggoo gi ngeen déggoo yéen ñaar seen diggante lan la da ngeen a xame woon bu yàgg wala da ngeen a nekkoon ay xarit wala wala lan la seen diggante yéen ñaar waaw diggante bu simple la rek comme diggante artiste ak maroom ji donc euh, loolu la rek. mais xamante woo leen bu yàgg. bien sûr xamante bu yàgg waaw yàgg ànd yàgg liggéey. Mhm. macha loolu la rek comme comme comme artistes yëpp rek ma xamanteel. mais yéen a ngi demalante di fekkalante seq. Euh, mhm. yéen ñaar seen diggante daal dafa proche wala daal. waa xam nga nit da ngeen liggéey ba mu yàgg ngeen dem benn moment. kenn ku ci nekk euh, am daal sa yëfi bopp nekk ca di liggéey ci sa roq donc loolu la ñëpp doon ñaan yàlla donc euh, loolu moo nekk parce que tey ji kenn ku ci ne boo sa sañoon am sa yëfi bopp liggéey sa liggéey bopp nekk ci sa roq mais comme ça tey jii ni ngeen déggoowee tey jii boo xewlee mm. per bu xar dina ci ñëw wala per bu xar xewle mm. doyen dem ci ba xam séq ngeen loolu <laughs> waaw mais xam nga ay nit kay bu dee ñu ngi ànd ànd bi di dëgg xaw ma nag ànd bi di leneen mais ay nit bu ñu dee ànd ànd bi di dëgg wax yàlla ku ci xew xewle nag sama war naa dem n'est-ce tar mës na laa fekk Louga sa dëkk seet si la. ah mais yow ñaata yoon. Mm. du jeex du mm. jeex. Mm-hmm. yow mës nga koo fekk fa mu dëkk. du jeex du jeex. Mm. dafa mel ne yaa per bu xaat seen diggante. complicité bi complicité bi ci nit ñi foog dëgg-dëgg dafa mel ni dafa des. yaa ko wax de man de gisuma ko. non dañuy waxtaan rek. yaa wax loolu man ci émission la. man de gisuma loolu en tout cas daal xam nga man dama dul dugg ci ay détails. maanaam Sénégal soo duggee léegi ci yenn détails sax ñu jàpp ni yaa quelque chose te damay bëgg moo tax damay bëgg di détails yooyu ñu koy ñu koy ñu koy écho xam nga lu tax parce que li ma wax dafa doy sëkk ay nit dinañ ànd ci dëkk di liggéey ba mu yàgg yàlla def kenn ki am yëfi boppam ne keneen ki am yëfi boppam nekk ca waaye yàqul dara nag ci liggéey bi ñuy defal télévision média liggéey daal ngeen liggéey di Futurs Médias di def allo présidence mm-hmm. ñoo koy defandoo ensemble donc kon ñoo ngi liggéey liggéey bi ñu war ci télévision bi du ñàkk nag man ma am benn somme jënd fee sama taabale maa nga teg ko moom mu am sumpam di daal liggéey ngeen fekk. non saa à dire que liggéey du liggéey la ñu seq sax mais liggéey bi moo ñu moo ñu war. ci barab bi ñu ngi koy def suñu paree. ku ne dem sa yow nga ñibbi sa kër man ma ñibbi sama kër. jeex na loolu la. kon complicité bi ñuy wax ci diggante euh, euh, euh, doyen ak ak ak père mën naa ni xaw fa nekk noonu. Ah, ah. kon kon kon kon ko kon ni ko waxuñu ko ni ko doyen ah, ah nopp nopp nopp bu dofee eh, xaw ma nuñ ko ciy waxee. bu dégg-dégg bu dofee nopp yi kuy déglu war a wér. waaw dama nopp <laughs> léeg-léeg nopp feebar. léeg-léeg nopp dégg nañ la bu baax ca la nga wax. Mm. dañuy daal di dem ba Touba rek daal di ziyaar ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye mi nga xamante ni allah musaale Fatim ma bu saak ñoxor Amar nga nekk foofu ca marché Ocass yi ngay jaay moom lañ bëgg yére yi ngay sol moom lañ bëgg doomu ndayu El Hadji Mama Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare borom yére yu rafet yi ci man borom dàll yu rafet yi ci man chéri Fatma sama yaay jooju maa ngi lay ki nga xamante ni mooy sama yaay muy Fatma di nuyu waale tante Awa Mbaye mi nga xamante ni nit ku baax la di yaayu Pape Mbaye di nuyu waa Touba gépp rawatina Aram Mbaye ma fa nekk ak ñoom Diine Mbaye maa ngi leen di ziar bu baax a baax ak Dabassar sama waa suñu émission nag waaye ñu nekk ci cëppaandaw gi euh, ma lay ma lay ma lay bàyyi rek nga tàggatoog askan wi. wax di la nuyu d'abord di kontaan ci invitation bi ak euh, question yi macha allah di nuyu Papa Ngagne sama xarit sama waa ji am naa amel na ma ba xam naa après ñu xool ma nag moom. <laughs> ni ngeen koy arrangé. <laughs> di nuyu bu baax a baax euh, Astou tout as. Mm-hmm. nekk jigéen bu baax nekk fii ci Yoff Euh, borom boutique la maa ngi koy nuyu baax di ko jaar waaye di nuyu Cheikh Mouhamed Abdoulaye Thiam borom fondation Kër Rasoul di sama soppe ñu bokk sopp Seydina Mouhamed maa koy gërëm di ko sant mhm. di nuyu nag waa FKR Louga yëpp fondation Kër Rasoul bu Louga mhm. man maay président ba euh, ca Louga mhm. maa ngi nuyu ñoom Adja Ndeye Diop ñoom Soda di nuyu ñoom Fat Kébé di nuyu waa fondation bi yëpp comme bu bànd ñoom ñëpp euh, di jaajëfalaat daal mbokk yi nga xam ni ñu ngi doon suivre di wax ni ñu ngi kontaan ci yéen di leen jox seen wàccuwaay bu baax. baax a jërëjëf jërëjëf doyen kontaan nañ tamit ci yow ni nga ñu yombalee liggéey bi lépp ci kaf ak reetaan ambiance macha allah nit ku baax nga vraiment tey laa la mës a gis waaye rëccu naa li ma la yeex a xam tey su ma sañoon xam la bu yàgg a yàgg ci sa simplicité maa ngi kontaan bu baax waaye nag du ma toog jël-jël yi ba jóg te nuyu ma ki nga xamante ni mooy sama yaay mama ki ne Diouf jaaga ma la ziar bu baax a baax a baax sama yaay ngi ci social bi ngi ci margo yi mi ngi ciy def lépp lu baax yaayu Waly Seck sama yaay jooju maa commission Dialdialy lépp lu ma fi def rek yaa ko moom mm-hmm. ndax baax ak yiw ak simplicité bi nga xamante ne mu nekk ci yow jaamu yàlla gu dëggu ak maandu gi sax ci yow maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar di ñaanal sa njaboot jàmm ak tawféex émission Dialdialy ngi noonu beneen invité ak yeneen i numéro mm-hmm. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di tàggu